wala Dakar net ñu ngi leen ay nuyu fas yéene ñëw ak yéen ci waxtaanu weeru koor mooy gan gi nga xam ne danañu fàddu fukki weer ak benn ganes yi ñu ngi koy wax ne ko marhaban bienvenue ahlan wa sahlan ñu ngi koy wax ne ko <clears throat> nopp yi ak bët yi ak xel yépp ak biir yi ak bànneex yi ñu ngi la doon teeru tasaareel sa leer fu la neex ndax leer googu boo ko tasaaree boo tasaaree leer googu mooy ne day yóbbaale ay lëndëm mboolem jiw woo xam ne jiwu xay la woon waay waay faagaagal ko ray ko te nga jëmbatal ñu pepp mbugeel saafaral xol yi ci feebar yi manqué-manqué gàkk-gàkk yu bon yi waaye bi ngay ñëwoon nag nañ la ndax suñ gannaaw diis na gann ak ay bàkkaar waaye woyofal ko suñ xol yi fees na del ak bànneex waaye waaye dimbale ñu ci ba nga xam ne bala sa fanweeri fan rek ngay am nag ci ñun wala ñaar fukk ak juróom-ñeent waaye gan googu gan googu balaay jeex jikko yo delluwaat bàkkaar yi wàcc suñ conscience tilim na waaye waaye sa yéene yi tilim na gàllankoor gi bëri na laabal ko waay jëmm yi ñu ngi gaaral seen bopp heure bu ne ci loo xam ne meram yàlla lay waral waaye xeet lu ñu ci waay foo toll yaa ngi dégg ñi xaacu di xeetli ko ci borom bi waaye gaawal waay yow kat eh, odeur bi nga ñu bàyyeeloon daaw ba léegi ci lañ doon funt ngelaw li nga xam ne bi nga uppee noonu ba naaw bay dem ngelaw la nga fa bàyyi mu ànd ak tajaliyaat ci yàlla bugg yàlla fekk xol yi tooy nañ ci yàlla ci loolu de ci la ñuy sukkandiku ba léegi xol yi mën nañ la ndax sujjóot naafila yi sujjóot naafila yi waaye bakkan yi yàkkanti nañ nafaxaat ëf goo nga leen daan ëfal yàkkanti nañ ko yow nag li tax ñu yàkkanti ngay ñëw yaa ñuy jox xibaar ci kuñ nga xam ne kiy jël séetam te seet bi muy jël bi mu koy jëlal moom fekk na mu tilim seet bi mu ngi tudd barakaan mooy barke yàlla mi barke yàlla nag ci weeru koor rek lay ñëw incha allah wala ci la gën a bëri weeru koor ci ngay dégg yàkkanti nañu dégg taraani musakirin kenn ku ne allah alaay ci jàkkee ni muy neexee malaaka yi seen bëgg yooyu ñu daan upp di ñëw di ñu fekkele si yàkkanti nañ loolu comme ñëw nga nag marhaban ahlan wa weeru koor a ngoog weeru koor yooyu ma junj ci yëpp da koy indiwaale ram weeru koor daan bët yi ah da daan tooy waaye bët yi dee tey moom dafa mel ni xaw na ngiis ndax ronkañ génn ci boo xam ne dafay sotteeku ngi ragal yàlla xool yi commencé nañ woowaat ba mel ni doj waaye wàccal nag te ngay indiwaale médicament bi ñuy saafara gëlëm nañ ci biir mbir yi am na ñoo xam ne sax dañoo gëlëm ba far génn ci réew dugg ci désert yi désert yi xelaat waaye mu dajal ak ngelaw lu ñuy wax coronavirus kon nag ñu ngi sujjóot di sant yàlla ci ñëw gi nga ñëw ñëw gi nag li tax ñu gën ci kontaan mooy sa guddigu guddigu njëkk gi ci ngay dottee xéwal yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida kaana awalu laylatin min shahr ramadan shufida shayatin wa maradat aljinn wa xuliqat abwaabu naar falam yaftax minha baabun wa futihat abwaab aljanna falam yuxlax minha baabun wa yunaadi munaadin kulla layla yaa baaqi alxayr aqbil wa yaa baaqi shar aqsir guddi gu njëkk rek lii nga ñuy indil ci ay cadeau bu doon ay bagage moom tàndar manca Eh, sukkaran ca sukkaru yàlla nag laa wax lu dàq sax sukkar ndax guddi gu njëkk bi ñëwee dañuy jéng saytaane jéng saasaay jinne yi maradatul jinn mooy ñu dem ba nga xam ne amatul lu ñuy bañ doomu aadama dana yegg foofu yenn ci la musal di def lu bon di def lu bon ba yow moom xàmmeetoo <coughs> lu yu bon yëpp foo gisee lu baax sax dangay ngay yaakaar ne lu bon la guddi gu njëkk kooku ci la ñuy tëj bunti safara te dootuñ ko ubbi mukk fekk weeru koor bi jeexul guddi gu ñu ubbi bunti aljana te dootuñ ko tëj mukk fekk weeru koor jeexul aji xoote jaa ngay xoote ci guddi gu njëkk nag mooy neen nga jin dënd yi bu njëkk sax boo demee ci araab yi ba léegi benn tama la ñu yore di yëgle ne tey la première naafi la te ki yore tama googu nag ci malaaka yi xam nga lan la wax eh yow mi nga xam ne yiw rek moo bokk moo nekk sa bopp bi jublu sil te taataan eh yow mi nga xam ne seytaane rek moo nekk sa bopp sooye boo joxe gannaaw kon nag hadis bi soo ko faram da ko tënk ci ay yoon yoon yim ko tënkee mooy bu njëkk ba mooy dañuy jëng seytaane ak jinne gi nga seytaane jinne yow li mu la war a jëlal li mu la war a jëriñ mooy eh, yow it tinkal nañ la bon sa jikko ju rafet ak sa xol bu rafet ak sa jublu ci yàlla ndax xol bi benn gàllankoor la amoon ci kaw suuf mooy seytaane seytaane boobu jéng nañ ko ba nag bégal ban kontaanal xubbil say bërit xool iblis na ma la dara moom ak i ñoñam bu njëkk baa Eh, bu fekkee ne dañoo jéng seytaane waaw seytaane nit ñi nag bëri nañ ci weeru koor bi de ci la ñuy gën a sawar ci la ñuy gën a sawar sax ci lu dul weeru koor yàlla dafa wax ne seytaane nit dafa seytaane jinne am seytaane jinne ak kàccoor yi moom dañ leen nay jéng waaye seytaane nit ñi nag ci la ñu ko am dañu lekk ca tàndarma ja da dem ca jàkka ja da bokk ña naafila ya di def lépp activité yëpp <laughs> dañ ciy bokk waa kooku nag te dañ yu gën di bëri nag gën sawar ba looloo tax ñoom sax rôle bi Iblis daan def dañ koy multiplier ndax amul fenn foo xam ne nit dana fa jaamu yàlla te duñ fa mën a dem waaw nuñ cay def ndax da tëdd di nelaw bàyyi leen ñu def seen mbir wala nag da nga cee def pexe képp kuy nodd sax dañu ñëw ci sa nopp naan la waayo bu fajar mu naan la nelawal nelawal benn nelawin rek sa waay moo gën naan yaa ngi jóg di dem ci fajar gi nangam nangam nii la wax de butu bés boobu it kon nag yal nañu la musal ci seytaane nit ci weeru koor waaye seytaane jinne moom boobu waxatuñu waxam ci weeru koor ci maa ci hadis bi deuxième point ba mooy dañuy tëj sawara te dootuñ tëj tijji benn bunt fay weeru koor bi jeexul loolu li nga ciy déggee mooy yi daan tax nit di dugg ci xay muy yëngu ci xol ba ca bakkan ba buy góor bànneex ba nekk ca biir topp ko rek te ci weeru koor bi nag ci la ñu gën a soxla yooyu bànneex boobu dafay gën a yëngu ndax boo xiifee ba ci genn wàlle xiif gi rek foofu la góor a yëngoo góor bu xiif reggee ba ëpp mbiram doxut bu xiifee ba ëpp mbiram doxut bon ci digg bi fi la mbiram ay yëngoo seytaane foofu lay gën ko soxla kon nag yooyu nag moom lañ la tënkal ba nga xam ne incha allah loolu da nga ci mucc li la nekk sa nopp yi di jax-jaxal naan la lii laa la yooyu yëpp day jeex ci weeru kor ba nga xam ne bu ñu lay dindaloon kiiraay yi bu la yàlla dindaloon kiiraay yi ba nga mën a gis aljana ah sawara ba nga am ndax moom lañ la tëjal te dootuñ ko tijji buñ la ko yàlla mënoon a dindil te am na ñu mu ko defal nag dindil la yi sawara ba nga jàkkaarleeg heure bi weeru koor na safaraay géeyee mu ngi mel ni couvre-feu boo xam ne huit heures lañ wax nga toog ba dix heures wala sept nga génn ci mbedd yi bu fekkee ñeme ngaa génn na muy géeyee na muy wéetee safaraa ko gën a wéet dootuñ ko tijji mukk mooy ne yàlla nee ci foofu ci waxi li muy tekki dama la koy rëppatalal li muy tekki rek mooy ku dem safara wi après weeru koor ku fi weeru koor fekk nga woor fan weeri fan jóge ko fi demaat safara rek boroom la neex bunt safara da daan raj raji nit ñi di puusante ndax ña ko defoon lañ defoon ba dem fa boo leen mënoon na gis niñ leen ay fangee di leen dugal yal nañ ci Yàlla musal weeru koor yi nag noonu la bunti aljanaay ubbee ko di raj-raj yi gaa yaa ngay njëkkalaan di juróom-ñetti bunt yëpp la ñu ubbi safara juróom-ñaari bunt la am moo tax mag ñi ne nañ safara dara mënu koo tëj xanaa xamoo ne niñ lay tëjalee bunt safara ci weeru koor yow mi jàng fatiha bismillahi rahmaani ba ca wala daalin amin muy juróom-ñaari aaya aaya boo jàng rek tëjal nañ la buntu sawara bula neexoon yow moom sawara daay man dañ la koy tëjal yow daay man yaa ngi ci koor xanaa loolu jar na benn émission yow mbokkam jullit bi may déglu yow jullit bi may déglu defal fatiha muy sangaanaay waxtu boo jàngee fatiha aaya boo jàng rek tëjal nañ la buntu buntu sawara aaya boo jàngit incha allah tëjal nañ la bunt aljana ubbil nañ la bunt aljana maanaa boo jàngee benn aaya ci Fatiha aaya boo jàng ñu tëjal la buntu sawara aaya boo jàng ñu tijjil la buntu aljana mu des benn bunt aljana juróom-ñetti buntu boo ne amiin ñu tijjil la bu juróom-ñetteel ba amiin kat ñeenti araf la waaye ñeenti téere fa ne téere bu ñu wax tawreet ak téere bu ñu wax lindiil ak téere bu ñu wax sabóor ak téere bu ñu wax furqaan téere bu ñu wax furqaan li mooy baatu amin ñeenti xaraf yooyu la kon nag tëj nañ bunti sawara te doonuñ ko tijji ko mënoon a yuundu séentu ko dara neetu fa kenn doo salaw moo bu jot bu dix jot wala onze heures bi nekk fii nag muy mbas mi yal na ko fi yàlla jëlee yàlla dàqaale ko ak mu ànd ak weeru kooru ci guddi premier dañ la buul buntu aljana te ko tëj mukk nee nañ yonent bi nee na ku aljana ñëw te sa téeréeb jëf ju baax feesu dootul fees mukk ndax loo def benn ñu joxal la ko fukk ñu defal la ko fukk ba ci juróom-ñaar téeméer mu nekk aljana nag dafay dem sol ay yëreem comme jànku njëga njëgamaar boo xam ne dañ naan ko tey waa ji ngay bugganteel moo lay seet si première guddi weeru koor rek aljana solul na mahiyal janna tase yenati li naasiriin futihat abwaabaha faffaaha abiruha comme ni nga ji jigéen ñi di cuuraay mbaalu da nga yaakaar ne fii rek la ñu ngi gonga <laughs> jeg seen yooyu utal nañ ko tur bu ne nag xam naa yow xamagoo ci ji tur utal ko tur bu ne <laughs> tur ne am na <laughs> waaye aljana itamit jongama la bañ na ko ba yàlla daf ko jigéenal janna aljannatu dañ ko jigéenal moom it day sol taar lim dencoon ci bagage yëpp da koy génne ci weeru koor ubbi buntam ndax bunt bi boo ko ubbee ci la air yi gën a mën a duggee ku fa ne ci lay gën a mën a am yaram gën a am euh, wérgu yaram mu dal di caal taal cuuraayam cuuraay ba na mu tudd habir habir mu taal cuuraayam nag aljana boo xoolee garab yi ñoom ñu ngi kontaan di fecc meññal waa ngi fecc meññal waa ngi yëngu ku daan moy ku daan topp yàllaa ci mu ne leen tey kat yéen ñaan a ci am Quraan mooy yàlla ba weeru koor ñëw bu neexee mu tuub te dootu ca dellu te bu ca delloo woon moo Quraan topp yàlla ñoo am képp mais bi weer ku ko mën a fay ah bal kullu faajirin wa baaxin xatta kàccoor ba nga xam ne dem na ba xàgg ca dayoo kàccoor sax ci weeru koor moo waaju baax ja ñooyam bu ko neexee nag lañ wax lisaanu xaal de loolu lay wax lisaanu xaal mooy làmmiñ actuel lisaanu xaal weeru koor mu ngi la naan waay waay ñëwal jublu sil bàyyil say bàkkaar ci gannaaw te dootul la dam mukk ah bàkkaar yi dafa diisaloon sa gannaaw incha allah dinaa ko yofal léegi waaw bànneex yi daf leen légaloon ba mënoo yendal manoo fanaanal dakk na buural fexeel ànd ak yàlla ci buggam ci jëfam ndax lépp lu doomu aadama liggéey ci dundam moo ko moom ba mu dos koor kooku yàlla moo ko moom moo koy fayal boppam mu ne ko ba nag waajal ak yàlla fexeel not say bànneex nag góor góorgóorlul di joxe bàyyil nay nay lu muy jëriñ ndax weeru koor yonent bi dafa tabe woon waaye bala daan gën a tabe dëgg mu nekk weeru koor ndax weeru koor ma ba dëgg mooy nga yëg ñi daan xiif ndeke ñàkk nii la kon nag weeru la woo xam ne te boo ci joxee benn kat ñu defal la ko fukk ba ci juróom-ñaar téeméer te ku xoor ba ngoon nga dagal koy kat kooku moom du wàññi ci kooram dara te da am lu tool ni kooram te du wàññi sa koor dara ba nag boo daggalee fukki nit ñaata koor nga ñaata nga am booleeg sa bës bu weer bi dee rek nga am fukki weer yoo xam ne <laughs> mel na ni xoor nga ko noonu la mel diggantaan